ay waay fii xal sa xol ah original neexal bu te am na gu original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw nga xam ne mooy revue de presse 100% lutte bi euh, Lamine Mbow ñu commencé ko ak Tribune Sport Tribune Sport moom dañu wone photo Balla Gaye 2 ak tafaatin ñu ne combat revanche du 21 juillet prochain Balla Gaye 2 Tapha la tension monte à quelques jours waaw tension bi moom monté na lool lool lool sax. parce que xam nga ñaari mbër moom bu demee ba jàkkaarloo. waaw ki naan boo ma ko waxatee wala boo ma defatee lii ma saaga la. xam naa ne yaramam na euh, amertume bi nga xamante ni tey am na mhm. si ñaari mbër parce que mhm. bëri na vraiment bëri nañ dix ans après war a ñëwaat. man sax foogoon nañ ne vraiment tension yi dina apaisé wu. mais combat bi vraiment gis nañ ne tension bi dafa monté lool lool. lool tribune sport waaw xaw mhm. nag lu waral loolu. Mhm. waaye en tout cas euh, daal na ne ñaari mbëri xiifante nañu. Mhm. ah na ci ñu ne Faye Balla Gaye de Tapha Tine tension baa ngi gën a yéeg rek. loolu nan nga ko jàngatee. waaw seen face to face keroog. c' est normal. Uh-huh. waaw c' est normal. c' est normal nañu nañu nañu nañu gérer nañu gérer. su supporter rek laay wax dañu xam ne loolu mbër la. waaw parce que comme que bëree woon nañu. kii daan si kii nekkaat ci yoon. ba mhm. toll fenn fi. waaw si mu am lu mu yëgaat ci yaramam. lu mhm. wuuteeg li mu doon nekk. Mhm. kon c'est normal que. du bi toll fii. waaw mais combat bu nar a neex la. a neex. waaw gis nga ne ah, gis nga ne ñaari mbër yi dinañ xeex. waaw xeex bi mënta ñàkk. mënta ñàkk waaw mais du yàgg. du yàgg mm. ah pour buntu la ak yooyu noonu rek. mais mais est ce que du ñëwee ak rage maanaam mer gi muy mer gi muy wane nii tey est ce que du ko andi ci moom bu fekkee ne am na encadrement bu normal. du du noonu ci Balla Gaye mm. parce que Balla Gaye mbër la boo xam ne moom. Mm. tant que yaa tant que boo bëriwul ak moom calcul. Mm-hmm. waaw da ngay. mën na la nax waaw mën sax. Mm-hmm. Mm-hmm. bi nga gisoon face to face bi ak bii am na changement. bi ma gisoon mooy. face to face fële. waaw am na changement tuuti. Mm-hmm. Ah, am na changement tuuti waaw. am na changement tuuti parce que man na nga xaw a mm-hmm. ah. te loolu moo gën a mais Balla Gaye dama gis ne aussi. Mm-hmm. forme bi mu wane nii. waaw wóote rek forme bi mu mujjee andi kon ku ci nekk kii xaw na wàññi kii xaw na yokk. te nañu fi mu toll nii. waaw méngoo gisee seen communication gis naa Balla ñeme trop tafaatin. mais Balla c'est normal Balla noonu la mel. Ah. noonu lay def. Mm. te Balla loolu moom si lugam la bokk. dëgg la. waaw. Hmm. waaw Tapha Tine na xam ne Balla aussi mbër la boo xam ne. waaw moom ni muy waxee dina ko jëfe hmm. mais tamit du combat bi combat bi moom bu mu bëgg la bu fonk la moom tamit fonk na parce que kii ko daanoon. Hmm. waaw kay combat bu neex la daal. combat bu neex la ah, bu kan nan nga gisee communication ñaari <coughs> ne ku si na nooy communiquer Tapha Tine li muy si communication da ngay wone ne. aynal na Balla Gaye da ngay wone ne bëgg naa jëflante moom dangay ngay wone ne bu ko jékki woon. bu ko mënee daan sax da ngay da ngay sant ne kii. dóor ko. wala gaañ ko wala humilier ko sax lay gën a bëgg ka jàpp rek daan ko wala gànn hmm. bala gay aussi gis nañ tout le temps vraiment tey mu ngi koy jéem a mu ngi ko hmm. def effet parce que gis nañ vraiment un tafaati ne boo xamante ni tey hmm. da si moom vraiment euh, mu nerveux mu excité wu de telle sorte que li Forza wax rek tey yaakaar na SFM duñ ko bàyyi mu bëri noonu parce que bu demee noonu rek ça peut lui porter préjudice ah, cër bi mu ko jox. Ah. di ko bàyyi muy defulewu ci kawam. wala di ko di ko lii ci dara. ah mun na Balla Gaye Balla Gaye loolu mënu si dara. Hmm. Balla Gaye kenn mënu kaa kenn mënu kaa traité. kenn mënu ko canaliser daal. kon wax bi daal Balla ko moom. Hmm. non pas moom moom wax bi parce que Balla nit kuy jëf la. waaw parce que Balla fi mu toll nii ni ma ko mën a waxee fekkoon damay wax. Hmm. mooy li mu war a def def na ko ci làmb. waaw. làmb am na loo xam ne boo demee mu wane ko. Mhm. def lu kenn xalaatul woon. Mhm. kon boo ñëwaatee di complété rafetal palmarès ngay defar. Mhm. comprendre nga. kon du di koo xam ne dañ nakaan dafa moomee wax. moom day wax day jëf. day wax di jëf. waaw mais ça veut dire que moo nekk mbër moo xam ne moom. moom ni muy ñëwee ci làmb loolu kenn mënu ko kaa tere. waaw loolu kenn mënu ko kaa tere. combat yëpp noonu lay mel. waaw ah. Tapha Tine moo war a xam ne combat bi ci xel la ko war a gérer. waaw si xel. waaw ci xel combat xel la. xel combat mental la mental la waaw mu ngoog. Hmm. mais bu ko nan nga gisee forme ñaari mbëri actuellement Balla Gaye dafa. fekk si tafaatin waaw changement xaw na am nag Balla gis nañ ne xaw na gën a peut am développement tey ci côté yaramam. waaye tafaatin aussi gis nañ mu mm-hmm. mu am nii si am bi bu combat mu comme tànk dina dina ko song. Mm-hmm. kon tafaatin doit être sur ses gardes. mën di déplacer wu à temps mën di def di déplacement boo xamante ni tey bu Balla Gaye di ñëw di ko songo si dina ko mën mm-hmm. moo ko arrangé a gis ah ah, moom moo nekk ci kanam chaque jour mooy kii daanoon. waaw chaque jour kooku ngay jox favori. waaw ba ba bu ko dindee mu favori bi daj. Mm-hmm. Tapha la mu war a moo def ci la Tapha. Mm-hmm. ah warul warul warul sànjaafu Balla Gaye à cent pour cent. waru ko sànjaaf. déedéet déedéet man tey fekkoon dama koy conseil. Mm-hmm. dama nakaan bu ko bul attaqué Balla Gaye. sax da ngay garder distance ak moom. bu mu attaqué Balla. déedéet. Mm. waaw mais bu mu défendre tamit à cent pour cent. à cent pour cent waaw da ngay cette distance. waaw waaw nga bëreeg moom ci loolu. comme tey gi su ma conseil Balla Gaye dama nakaan agressé Tapha Balla Gaye dem agressé Tapha Tine. loolu wóor na. loolu mooy gagnant Balla Gaye Balla Gaye bu agressé wul Tapha Tine combat bi mënul mënul mënul jàll ni mu ko bëgg parce que nit ki soo ko agressé wul doo leen laalante. nan la koy agressé agressé arbitre siffle rek mu daw dox ci kawam. mais xam nga Balla Gaye Balla mënoo wax ne mbër la boo xam ne mënoo wax ne mën na xeex. Mhm. mënoo wax ne mënul xeex. waaw parce que benn bii gën a lii gën a jafe ci mbër da koy def mooy xeex xeexu guerrier. Mm-hmm. mooy ñëw fayet ak yow. waaw te parfois mën na ci may waaw cokki mm-hmm. te xam nga loolu mooy xeexu làmb presque. waaw waaw boo xoolee tafaatit moom xeex bi ñaari façon la ci am. waaw mën na sànni dro mën na sànni gauche. waaw mais aussi droite am pour mu génne il faut mu jàpp la. Mm-hmm. kon ça veut dafa am ñaari différent yoo xam ne dafa am foo xam ne ñoo ko bokk. mooy que foog ñu laalante ku nekk na ko def li nga bëgg. dëgg la mais beneen bi boo gisee mën a pour mu mu agressé ka mooy que warul taxaw di xaar. parce que mbër bu toogee tamit aussi di liggéey ci yow. te nga hmm. bëriwul ak moom. waaw dana am mu travail droit am. Hmm. ci diggante bi. te Balla Gaye warul taxaw xaar ba Tapha Tine di ko dóor droit. Gaye du dóor droit. Hmm. kon a mhm. mhm. a mhm. a ah, jàngat na combat bi de. waaw jàngat na kii bi te c'est normal en tant que lutteur tey en tant que technicien tey. Euh, boo nekkee si làmb tey vraiment war nga di étudier mbër yëpp. parce que éventuellement tey yàlla mën a dogal nga bëre nekk tey. par rapport ak système mm, bi ñu gis taay ni tey muy grand contre petit bi tey. te vraiment li may wax chaque fois tey ni ñu gisee tey Modou Lo maye ko Boy Niang chance tey mm-hmm. mm-hmm. tey. ku mel ni tey vraiment aussi ñu ne si kaw war nañu mm-hmm. ñu ko mën a waxee certes euh, gëj tey. war na mën a am étude si mbir yëpp au moins nga am si ñoom quelque quelque yoo xamante tey dina la permettre euh, boo si jàkkaarloo ak nit rek vraiment di mën a travailler li nga war a mën a bëre moom. donc euh, dégg ngeen analyse bu exceptionnelle bi nga xam ne Forza def na ko si Balla Tafatine si seen face to face bi parce que la tension monte léegi bu ñu jógee foofu Boucar dañuy dem si sunu lamb sunu lamb dañuy ne derby Guédiawaye contre Parcelles Pape Mbaye donne une leçon de lutte à Dame Sène victoire Pape Mbaye 2 si retouram retour gagnant. personnellement nag betuma mhm. personnellement parce que Pape Mbaye yàgg naa ko xam yàgg naa ko suivre. Mhm. yàgg nañ daje aussi si àll yoo xamante ni tey fekk naa ay yoon mu koy finaalu fii ba ñaaxaar fii ba yëngale mhm. doo foog sax ne Pape Malick dafa ñëw di fa bëre nekk jàmbaar boo xamante ni tey te li ma mhm. gis ne moom mu woon foofu di entraîné mu woon aussi si ay salle di def ay di def ay lutte gréco ko yi demee noonu mhm. ak boo entraînement wee yéen a entraînement boo ñibbisee fii nii boo contacté benn un mois deux damay gis ne repère bi day ñëw réflexe réflexe bi aussi day ñëwaat vraiment keroog léegi bëre bi mu ngi fi ba léegi ku mën a bëre te aussi gis nañ ne yaram bi développé na développé na aussi benn côté parce que boo seetloo Pambaay sax mhm. ñàkk yaram bu doon développé sax moo tax tey mhm. fi waroon a dugg far mënu fa mënu fa dugg parce à chaque fois dañ doon xool mbërim tolloo taañu la ñu ko koy jox mhm. mais en tout ndaanaan la te man gëm naa ne am na lu ko dese waat ci làmb ji Pape Mbaye 2 lan ngay wax si retour gagnant bu mu def daan Dame Sène jël bu rëy. waaw ñu koy félicité di encouragé Dame Sène. Mm-hmm. di wax ne Pape Mbaye tamit aussi yàgg mm-hmm. mm-hmm. da ngay waaw moo xam nga ëpp ko waaw dafa la. te aussi aussi mu daan Laurent Ndiago xam nga làmb moom li ma wax à rek tey. Ah. Euh, mbër yu bëri da nga xool peut-être benn ñaa bu ndaw ba si Laurent keroog li mu bëre. Hmm. mbër même nit bu nekkee sa idole nekk sa turandoo wala nga bëgg ko sax. Hmm. doo ko toppandoo. Laurent Ndiago dafa ñëw xëy na magam dóor na mu daan rek mu ñëw bëgg a privilégié xeex a xeex mais maanaam xeex ba mu doon xeex noonu. Hmm. jaaduwul yoon di xeexee benn loxo di arrière doo am équilibre moo tax boo seetloo bi ko sekk songi rek fekk ko dara dafa obligé jaaxaan ak moom man zone de privilégié privilégié mu taxaw sax samp jaaga pour xeex moom mais mënoo di xeex di aje wala maanaam wala di xeex di daw hmm. moo tax nekk moo tax vraiment gis nekk na jël bu rëy boo xamante waaw defet yaa ngi commencé parce que lamba ji nag aussi vraiment boo ci nekkee nag aussi foog nga am maanaam benn mindset foog nga am maanaam looy demal loo xamante ni tey hmm. da naan iba lii man maa ko liggéeyal sama bopp mais des fois booy copier di roy fekk ki ngay copier li ngay copier ci moom ci mouvement. ak hmm. moom li nekk si boppam ak li ne sa bopp du doon benn aussi. laa yaa problème dafa war a jël yoonam a yoonam jël ay ah. initiative am. andi gëm-gëmam. nekkul ne liis mu ngi dóor mu dóor na dóor na dóor na euh, naaru sokaas mu daanu rek. Hmm. dóor na sos mu daanu rek nga ne man aussi dama xeex booy xeex da ngay xeex xeex jaar yoon. te hmm. xeex aussi li ñu à chaque fois rek. pour ubbi bunt ñëw si laa ma naan dama yóbbaale dóor mu daanu. mën nga nag am ay kaw yu bëree bëree bëree bëri mais dóor mu daanu moom des fois xam nga ndogal suñu borom lay nekk. Hmm. toujours euh, ñu euh, na son premier test. test bi moo doon fexe combat yi ñu siffle ko au plus tard à dix neuf et quart grand combat Dame Sène ak euh, ki nga xam ne mooy Pape Mbaye numéro deux. Hmm. ñu ngi ko siffle à dix huit heures cinquante à et quart fekk ñëpp génn nañu stade loolu nag en dina nekk aussi problème bu ndaw côté promoteurs yi. parce que hmm. souvent tey gars balaa ñoo añ bay jóge seen kër pour seetaan si lamb. waaw fekk combat yi bëri ñu am temps tey mën a ñëw dugg si stade pour mën a supporter aussi vraiment loolu tamit y problème aussi nombre mhm. production souvent bu tëggee journée def nga xam mhm. mhm. sa parrain amul temps am benn audience tey wala am temps ko def te ne xam ne koo tuddee nit làmb souvent tey au moins duñ ko may temps mu a présenté te souvent Euh, yeneen yi ñuy andi muy ay ndaw rabin muy ay cosaan culture yi ñu andi souvent aussi loolu dafa mën a en place en tout cas pour man bu ñu trouvé waat une solution gën a waxtaanaat mm. au moins sax mu yegg maximum vingt heures wala maximum vingt et une ñoo xam ne au plus tard vingt et une heures dina tas ñëpp mën a ñibbi seen i kër mm. toujours euh, si waa sunu lamb ñu ne euh, dernière journée petite production Ibou Afia trompe Aline Junior en 3 minutes 25 secondes. waaw bëri nañ combat bu neex Ibou Afia tamit nekk xale boo xamante ni te mu ngi commencé wane boppam mu ngi góorgóorlu aussi daan na Alioune Seye euh, junior bi nga xamante ni tamit vraiment si victoire la jóge ah, euh, digganteem ak Siteu bu Ngor. Mhm. vraiment daan na ko aussi daan jël bu rëy bëri xale ak mag la woon vraiment xale bi jaayante na ba woon mag dina ko ne vraiment maay xale maa wut si maay bëri man maa war daan daan na ko mhm. jël bu rëy aussi. Mhm. bu ñu jógee foofu dañuy nga xam ne mooy record record si euh, face ah Balla Gaye 2 ak Tapha ñu ne le Balla Gaye 2 assure le show le géant du Baol Téza mooy dafa noppi woon ñu ne Balla Gaye 2 show bi moo ko moomee woon. waaw un face to face qui a fait couler beaucoup de salive. vraiment mm-hmm. tey nekkaat combat boo xamante ni moom. Balla Gaye ni ko Forza waxee rek kenn mënu ko tee wax. Mm-hmm. te wax jooju yëpp aussi souvent c' pour se déstabiliser c' pour vraiment euh, atteindre sa intégrité. Mm-hmm. te loolu yëpp vraiment ay stratégie la combat ay ruse la ay ruse la yoo te gis nañ ne na ko utiliser aussi. Mm-hmm. di am benn ascendance psychologique bi si adversaire mu ngi wax ba ko boo waxaatee dinaa la saaga. yëpp vraiment day wane rek mu ngi atteindre objectif am tey mu ngi koy j'espère que Tapha Tine du tombé dans ce piège. ah euh, si euh, waa record ñu ne tafaati Tine nee na bu Balla Gaye bu dawul dina am lu ko metti trop bu arbitre bi sifflé Balla Gaye 2 dawul dina ko am lu metti si moom. Ah, mën na nekk. mën na nekk waaw mën na nekk. Mm-hmm. mais nag du yomb. Mm. du yomb. tafaatin wala fekk Balla Gaye bu taxaw dem fekk nga ko li mu bëgg. Hmm. Ah, hmm. moom li mu travail ba tax mu la hmm. ah. que su ko neexoon jëli beneen mbër. non làmb moo leen a bëre. ah làmb moo leen boole. waaw ah, sama gis-gis. parce que parce dafa toog ay victoire daan Boy Niang daan ki nga xam ne mooy Bombardier. ainsi de suite moo tax nee na moom moom moo tàllal loxo ki nga xam ne mooy Balla. Eumeu Sène bu muy bëreeg euh, Modou Lo boobu Modou Lo mu ngi jóge si defet mhm. loolu day si làmb làmb na fay toll làmb moo leen di boole rek làmb moo leen boole. moo leen boole mhm. d'accord euh, ba toujours euh, Boucar Balla Gaye 2 répondre na ko nee na certes j'ai perdu contre Eumeu Sène Bombardier et Boy Niang mais j'ai corrigé et battu Tapha Tine nee na. Euh, jour boobaa il va corriger Tafatine. waaw nee na il va corriger Tafatine parce que mu ngi naan sax ñu ngi wax de sax seen bés ku nekk naan ñi ma daan daanoon leen kii naan ñi daan daan naan laa koy noonu mais pour man loolu yëpp tey c'est du passé pour man tey ñoom ñaar tey ñoom ñoo war a bëre. Mm-hmm. ñoom ñaar tey ñoom ñoo war a en découdre ñoo war a jaayante ku nekk da andi li nga xamante ni nekk ci yow parce que boo daanoon mille personnes ñëw dajeeg sa mu mën a def mm-hmm. moom ñu am ci moom ndam loolu bëgg bëgg Balla nee il va démentir les pronostics parce que nit ñi ñaa ngi ne euh, moo ko gën moo dàq xeex moo gën a rëy mais il va démentir les pronostics. waaw loolu moom mooy nekk ob day nekk sax défi bu mu war a relever parce que mhm. tey nit ñi bu ñu ñëw naan nga war a bëri ñu naan tey ngay moo def le maximum donné donné donné donné jo comme ça données yi mën a changé. Mhm. lépp loo mën a def tey nga def ko yaakaar naa ne loolu loolu rek la war a mën a def ci combat bi nii. Mm, loolu war la. Mhm. Balla Gaye de nee jour boobu moom Sénégalais dinañu gisal seen bët moom mooy le vrai waaw ñu ngi koy ñu ngi xaar la jour ci incha allah. Uh-huh. waaw parce que moom moom. Mm-hmm. man li ma koy wax rek mooy mbër la daanaan la. daanaan la waaw lu mu wax dañ ci bàyyi xel. ñu lu mu wax dañ ci bàyyi xel. dëgg la donc loolu lañ leen andiloon si revue de presse cent pour cent lutte bi Boucar Ndour sans plus tarder dañuy dem suñu premier euh, sujet muy Siteu Modou Lo face to face démb hier ci était présent. Euh, ay waay fii xel sa xol. original 100% pur jus de fruits. Sénégal ka fay kan gi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw